ndeyu daara yi bàjjenu gox yi autorité yëpp administrative coutumière et religieuse yi nga xam ne teew nañu fi man maa ngi tudd Issa Saka nekk ki jiite projet bi ñuy wax lutte contre la traite des personnes ci bureau Nations Unies bi ñuy wax de ONUDC samay kaddu nag ay kaddu yeble la ci suñu directeur régional mais li may tàmbalee mooy rafetlu bu baax jataay bi madame la ministre ñoo ngi lay félicité bu baax a baax a baax a baax di félicité l'état du Sénégal ci taxawaay bu mot sëkk bi mu taxaw ci lii nga xam ne jàpp naa ne Sénégal amul lu ko fi ëpp solo muy mbirum éducation parce daara yi forme d'éducation la donc question bi ñuy discuter tey question d'éducation la ñu ngi wax waxu pétrole di wax richesse du Sénégal am mais tey jii xale yi jeunesse Sénégal le capital humain mooy li ëpp solo Sénégal bu ñu amoon pétrole bu doy sëkk am gaz ak yeneen ressources te suñu jeunesse bi formé wuñu leen tàggatuñu leen pour ñu mun ko jëfandikoo nu mu waree on aura tout perdu donc réunion bi rencontre bi amul rencontre bu ko ëpp solo maa ngi nuyu bu baax président Moustapha Lo di bëgg ci kàddu yi ma dégg ci moom li ma ci gën a neex ñaari mbir la bu njëkk bi mooy appel bu mu def pour ñu voter le projet de loi portant statut de Daara loolu ñun ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci secteur protection dañ ciy bëgg lool lool lool ñu ko déggee surtout fi mu ko waxee wax ne sëriñ daara yi toog yépp ñoo ko wax loolu lu ñuy rafetlu la ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax a baax sëñ Lo bu ñaareel bi mooy li mu wax ne jamono dafay dox loolu aussi bég naa si mu ne dañu war a dëppalee doxin yi ak jamono bu fekkee ne ñu ngi respecté principe bi nga xam ne mooy le principe initial loolu aussi lu ma bég la te loolu moo gën a tax ñun Nations Unies en tout cas ONUDC ñu taxaw pour jàppale gouvernement du Sénégal jàppale ministère bi parce que dañu nekk ci ay dëkk yu bëree bëri bëri ci àdduna bi di xam lu xew ci dëkk yu bëree bëri bëri di gis ne am na jafe-jafe yoo xam ne mu ngi am te li koy waral mooy ay nit dañuy jël diine di ko mbubboo ay nit dañuy jël aada di ko mbubboo te seen jubluwaay bi lépp nekkul lu dul am koom-koom muy lu ñuy wax exploitation économique loolu nag Sénégal mucc si am na daara yu baax a baax a baax a baax macha allah am na ñuy jàngale alxuraan bu mot sëkk wante nañu nangu ne am na ay nit aussi bien Sénégal te ci àdduna bi yëpp ñuy jëfandikoo daara di ko tuddee daara wante seen jublukaay dëgg-dëgg mooy am koom-koom moo tax ñun ñu ne dañu indi suñu contribution suñu expertise technique mettre ko à disposition de l'État du Sénégal pour xamal leen ne du loo xam ne dafa yem Sénégal Sénégal dañuy employé les daara ou la mendicité mais boo demee beneen dëkk leneen lañuy ñuy employé mais ñi koy def ñëpp ñu leen di oowee ay trafiquants wala auteur de traite seen fin mooy à des économique économiques mooy koom-koom lañ ci ut donc expertise boobu ma la ministre maa ngi réitère suñu engagement au niveau de l'ONUDC di accompagner ministère bi ak l'État du Sénégal du nekk seulement assistance technique mais dafay nekk également assistance financière fépp foo xam ne am nañu budget bu ñu mën a permettre ñu contribuer ci doxin bi nu mu gën a rafetee incha allah dañ ko taxaw mais maa ngi wax encore bu baax a baax a baax sama mbégte ci fekkee rencontre bi yaakaar naa rencontre yi mës a am yëpp bii moo ci ëpp solo parce que acteur principal yi ñoom lañ nekkal di waxtaanal ñi te ñoom bu ñu comprendre enjeu yi bu ñu jëlee engagement taxaw comprendre ne xeex bi c'est pas un combat contre l'islam ndax ay jullit lu ñu xeex l'islam c'est pas un combat contre les daara ay musulmans ñu xeex daara yi bu ñu comprendre enjeu boobu xam ne dëgg-dëgg xeex bi maa ngi tuub si kàddu yi mais setal seen der la setal seen der ndax ñi koy mbubboo dañuy tudd ay sëriñ te boo demee ba ci biir gis ne duñu ay sëriñ donc combat bi ñoo ko bokk ak yéen donc maa ngi euh, yemale sama kàddu foofu di tere suñu taxawaay techniquement ak financièrement accompagner l'État du Sénégal dans ce combat-là qui est maa ngi jub mooy combat bi ëpp solo bi nga xam ne tey jii moo lañu mën a jël si ko si dëkk bi donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi